ki nga xamne sax dafa dajé ci social media bi ben, ben wax bu ñaaw masalan waru koo share lam wara ñëk xex moy waru share ñaarel bi tek ci na ca comment na comment pour digal ki wax na soppi language am na génnee su ñëpp di def ni rek mbir mi dana def